waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu xayaakumullah ndax naafila yi nga xam ne moom la ñuy def ci weeru koor ci guddi gi ndax boo ko deful day yàq dara ci sa koor wala ndax boo ko deful boo xëyee waroo wooram déet ngir tontu loolu dañuy wax ne naafila yooyu sopp nañ ko ci at mi yëpp waaye bu dee ci weeru koor la sopp gi day gën a feddaliku waaye bu dee ci weeru koor la yoonal nañ ñu def ko ci mbooloo yoonal nañ ñu def ko ci mbooloo moo xam ci jàkka yi lañ koy defee moo gën walla feneen euh, loolu nag mooy li yonent bi wax ne man qaama ramadaana imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi képp koo xam ne taxaw nga weeru koor guddi gu ne nga taxaw ci di naafila yàlla subhaanahu wa taala li jiitu ci say bàkkaar yëpp dala koy sippil dala koy baal yàlla ñu ko yàlla defal yàlla defal ñu tawfiq ba ñu màng ko gàmm te ba ngay naafila yooyu lay tax nga di ko def mooy gëm goo gëm yàlla ak yaakaaru payam ak euh, yaakaar tuyaaba yi sunu boroom ji nga xamante ne ñoom moom la dencal ñi nga xamante ne ñoo koy jàmm waaye loolu euh, tekkiwul ne boo ko deful day wàññi dara ci sa koor boo ko deful du wàññi dara ci sa koor waaye ka ko def moo la ëpp tuyaaba ci taxaw gi mu taxaw weeru koor di ko naafi la ngir yàlla jéggal ko ay bàkkaaram loolu yiwu rëy la naka noonu boo ko deful du càggante ne boo ko deful waroo woor wala ku ko deful maanaam waroo woor bu subaa déedéet boo ko defee ak boo ko deful yëpp koor gi moom farata la ci ponk lislaam la bokk kooku moom ku amul ngant ku nekk da nga ko war a def dañ ko sopp tuyaaba yu rëy moo ci nekk waaye jotewul dara nag ak yàq koor gi du ci yàq dara waaye ka ko def nag am na tuyaaba joo xamante ne ka ko deful amu ko te loo xamante ne boo ko defee ngir ngëm yàlla ak sàkku bi yool yàlla da lay say bakkaar loolu jullit waru cee gàtteñlu waaye nag euh, ci buntu boobu li jaral leeral foofu mooy bokk na ci li nga xamante ne yu ñu sos la ci buntu naafi la ci weeru koor mooy jakka yu bari bo fa julle buñu nafila ci mbolo ci jakka ja ba pare da ngay gis yilimaan ja day daal di joxe ay nafila ne nafila tay gi nangami rakala rakka bu ne dang ci jang fatiha ak saar sangam nangami yon boko ko da nga am yol sangam yol sangam di tuddu yol yu reuy yoyu yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ko xet wi amul ben hadith bu wér bu tukke ci yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam buy wax ne guddi weeru koor gu ne dafa am naafila sàngam guñ cay def goo xam ne am na yool sàngam ak sàngam naafila yàlla da koo boyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo boyal ci ne booy julli na nga jàng li jàppandi ci alquran booy naafila guddi faqra'u ma tayassara min alquran fa mu tàmbalee ba fa mu yem ba fa laaya ja yem inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi llayli wa nisfahu wa thuluthahu wala wa nisfihi wa thuluthihi ci meneen njàngin mooy mu dem ba yegg ci ne nag boo taxawee euh, dinaa fi la guddi gi fala la tàmbalee mu ne na nga jàngali jàppandi ci alquran wala na jàngale jàngali jàppandi ci alquran kon lu jàppandi ci alquran gudd na gàtt na loola naafila la bu ko defee nga def ko ngir ngëm yàlla ngir sàkku ab yool yonent nee na yàlla dana la jégal say bàkkaar boo màngee weeru koor bi def noonu kon waaye jagleelul benn bis ne bis bii lii nga ciy def ak lii daal di cay seet indi ay ngëneel nag bis bu ne mu indi ngëneelu boppam wala julli gune ne naafila gu guddi gu ñu indil ko ngëneelul boppam loolu lu ñu sos la amul benn xadis bu wér bu tukkee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax loolu moo tax mbokk yi suñu bëggee bañ a sonn nañu mooy ci sunna ku bàyyi sunna sonn te ku bàyyi sunna rekk xamal ne wàcc nga fa yoonu yonent bi topp yoonu keneen wu ñu la fental wuñ la fétalal kon loolu moo aju ci yeete gi ñu bëggoon a yeete ci buntu naafila googu euh, di ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ñu defal tawfiq kon boo mënee naafila kaamilu alquran bi yëpp ci koor gi baax na boo mën boo ko mënul lu jàppandi baax na bu dee ëpp na benn kaamil baax na bu dee ëpp na ñaar baax na am na ci jaam yàlla yi ñoo xam ne ñetti fan yu ne ci weeru koor ñu jàng kaamilu bi yëpp loola moo jàppandi ca ñoom baax na am na ñoo xamante ne weer wi yépp mënuñoo naafila kaamilu alquran waaye benn juz lañuy ñuy mën a naafila koor gi yépp wala ñaar wala ñett wala genn wàllu kaamil bi lépp lu jàppandi baax na kon daal faqra'u ma tayassara min alquran la yàlla wax loolu la bi alayhi salatu wasalaam it doon jëfee moom ak i saabaam mooy jàngal lu jàppandi ci alquran lu mën a doon waaye nag lim sa saari bopp ne guddi gii saar yii la guddi gee saar yee la te naafila gu ci nekk nga wutal ko tuyaabay boppam joo xam ne yàlla ak yonent bi joxewuñ ci ndigal loola bokkul ci li nga xamante ne moo sax buntu ngëneel comme niñ koy waxee saa su ne yàlla subhaanahu wa taala akub yonentam képp ñooy saxal ne lii am na ngëneel sàngam ak sàngam saxaaba yi sax buñ daan wax ne lii am na ngëneel sàngam lan mooy àtte bi mooy dañ bu dee lu wér la tukkee ca saxaaba booba dañ naan loolu kon ca yonent ba la ko jëlee ndax loolu kenn du ko wax cim xel ci xelum kese loolu kenn ko wax ci xelum kese kon saaba yi nga xam ne ñoo doon dund ak bi ñoom loolu lañ may loolu koo xam ne ginnaaw saaba yi nga ñëw boo waxee loolu te jëlewoo ko ci saaba yi dañ la koy delloo mursal lay doon wala munqati ndax yow la nga wax kon kenn du ko wax cim xel te amu càllale goo ko jëlee mu jokkaloo ba yegg ci yonente yàlla muhammad wala ba yegg ci saabatul saxaabatul kiram mbokk yi diine dafa war a am référence bu amul référence lu neex waay wax pëccëxoo da cay am te diine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam jottali na lépp képp ku ciy saxal dara wala nga ciy dàq dara war ngaa am référence bu tukkee ci yonent yàlla bi wala mu tukkee ci alquranul karim wala mu tukkee ci saaba yi nga xam ne ñoo yaroo ci keppaaru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te luñ wax ci diine ji ci yonent ko jëlee wallahu taala aalam